du ma ko dégg bëri na ay mbir ci yu noonu waaye mbokk yi bi may jeexal mooy njabar ànd ak ne am na am na jeexantal njabarkat yi bëri na bëri na pexe ñu soxor ñu bon ñi ñi ngi ngir yàq waaye naka la ñuy def ba mucc ci jabar lu simple la doo ci weexale sa sërub dënk doo ci joxe sa dépense doo ci taal sa oto dem dëkk dëkk doo ci def leneen lu dul jël muslaay yi la lislaam jox mais nag jël moom dong yam ca doo ngarale soo ngaralee baaxatu ndax li nga ko wax ni jël waaye nag yàlla mu kase moom day rattax il faut que ñu jël jël boole waale ca aada bu boobaa yàlla nee na bëggatuma ana agna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka bihi maaya gayri taraktuhu wa shirk da ngay doylu yàlla wóolu yàlla mu doy la sëkk alaysa bi kaafin abda xoolal ayatul kursi nga xëy mu sàmm la amana rasul ngay tëdd wax ko ñaari laaya yooyu yonent bi nee na kafataa mu doy la sëkk day mel ne danoo jël ay ay commando yu wër kër gi kenn du fay aoudu bi kalimatillahi tammati min ma xalaq nga wax ko ñetti yoon boo xëyee yàlla di la sàmm ba ngoon nga gont waxaat ko yàlla di la sàmm ba بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سوكو واخي امول لن لولاي لوف قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس nga xëy wax ko ñetti yoon wala nga gont wax ko ñetti yoon yàlla musal la ci lépp lu ñaaw lépp lu bon bépp njabarkat ak seytaane boo xam ne buy yàq nga ànd ak njàpp rek fu sa njàpp toje jàppaatal fu sa njàpp toje jàppaatal bu boobaa buñ daje woon dajale woon njabarkat yi ci continent yi ci àdduna ni leen njabar leen diw ñuy xëy ci yow di gont ci yow fanaan ci yow day mel balu tanks lu ñu sànni mu dalaat seen ko mbokk lii ni mu ni mu simple te doo ci fay doo ci déplacé wu duñ ci def dara mais nag yàlla gëm yàlla yam ci tamit yàlla sàmm la bu boobaa bul takk bul naan bul xooj bul jàmb bul def dara sam xel mooy gën a dal fuuf xelu keneen ki nga xam ni moom ma ngay def yooyu yéeg te ngeen koo seetlu rek ñu bëri ci yéen fii doog leer na ma ne takkuñu dara jàmbuñu dara dun naan dara yoruñu tamit ay jàq li ma gëm mooy lu ëpp ci yéen ci xaala boobu la ñu nekk dama dama leen a te boo xëyee def say alkaar sa xel mooy gën a dal fuuf ki nga xam ne moom ay cëwréem ak i béjjénam ak i galañam la yaakaar su ngeen àndoon di dem ba ca garage ba mu lamb ndigg li fekk fa ndomba ba xelam du daw su ma nee bàyyiwaat oto boobu dem jëli ndomba la jëla ko jëli takk ko doog a su fekkee ni oto bi départ na ba pare te mënut a wàcc boo ko seetloo da daan jokk maanaam noyyi sax dootu ko defet parce que jàpp na ni moom dee na parce que li ko war a aar ma nga ca kër ga foofu ñu taxaw tuuti rek jëfandikoom xel yow en tant que nga ni jullit nga waaw li la war a la nga ni déedéet lii di lii alxuraan la dañu ko bindal nga ni alxuraan la d'accord yow jullit nga waaw alxuraan est-ce que duñ ko dugal douche lu muy wax déedéet yow nga takk alxuraan di dugal moom douche kon yow fonko alxuraan mu ne waaw kon garaaw kon léegi su dinaa ko sol mais bu may dugg douche dama koy simbi très bien booy dugg lu sën koy signé boo génnee solaat waa douche ba ngay dugg nga xam ne moo gën a garaaw fële ci nee nekk soo ko duggee lu lay aar nga ni ma solaat wala nga ni déedéet yàlla moo may aar ba may génn yàlla mën a aar ca biir